mbokk yi ñu am mbégte ci seq ak jataay bopp ñu ngi koy amale fii ci kër soxna may Maymuna ci mbaar mi nga xam ne mbaarum laylatul xadr la di mbaar mu ñu miinoon di fekk soxna Baali waaye di mbaar mu ñu di fekk soxna Maymuna sun borom subhanahu wa mi nga xam ne képp ku koy liggéeyal bu lay fay faw mu jël si waat la ci àdduna indiwaat la ba fa moom moom moomu nag moo jëlaat soxna baali ngir fay ko jëfam ju rafet akub liggéeyam yàlla na sun borom subhaanahu wa taala tabbal ko jannatul firdawsi e, mu dëkk ak way juróom wu waax ba di soxna Maymunatu Mbàkke bint Cheikhul Xadim ngir waajal bis bopp ñi koy amal gaawu di fukki fan ak ñett ci weeru avril bis bu ñu baaxoo di fàttali ko ak a sant ak ñaanal sunu wasila di sëriñ Mouhamadou Roqaya ren jii nag ñu darajaale ko soxna Baali di ko ci ñaanal ñëpp xamoon taxawaayam ñëpp xamoon ak bëggam sëriñ Touba waaye ñëpp xamoon ak ñeme woon ak njaboot te mënoon a boot lool. xamoon itam jikko ju rafet ji ko sun borom subhaanahu wa taala jox te jikko jooju yàlla tagge woon ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci muy makaarimul axlaaq kon noo ngi nuyu soxna may moom Cheikh Mamadul faadal mi nga xam ne ñépp xam nañ taxawaayam ci wetu soxna baali nuyu soxna gàdd buso mi nga xam ne mooy seen mag ñoom ñëpp di seen kilifa nuyu soxna aji mam bu sa mbàkke moom sëriñ Abdou Samad nuyu bokk yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi yépp di am mbégte di ànd ak fii ci lenn ci rajo yi nekk ci Touba ak li ko wër waaye ànd ko ak lenn ci site internet yi nekk Touba ak li ko wër tey nag <clears throat> ñu fas yéene fàttali ko jëmm jooju ginnaaw bu ñu siyaaree mbooleem dawaayir yi nga xam ne ñoo doon dawaayiru laylatul xadr yi ziyaare mboolem turandoo yi waaye siyaare it mboolem soppe yi ak fuñ mën ne ci biir réew mi ak bitim réew ziar boobu xam nga danañ ci ràññewaale bu baax koo xam ne kenn la woon ci njabootu soxna Baali di mbokkum soxna Aysatu di xaritam te ñu jagleel ko ci bis bi ab cëram ndax diggam ak soxna si di soxna moomi Kebe moom alxaaji Njuga Kebe ñu ziare ko siyaare kilifaam fas yéene seq ak jotaay bi nag ak sëriñ Gana Messere Maxtaar ak sëriñ Seexuna Mbàkke moom sëriñ Modou Habib mi nga xam ne tey jii mooy jëmmi sëriñ Abdoulahi ci kaw suuf yàlla na yàgg lool te ànd ko wér soxna Baali miñ fas yéene fàttaliku nag eh, sun borom subhaanahu wa taala ko nammee jox responsabilité bu toll ni bii mu koy jox daf ko waajal ci ab juddu ci juddu bu rafet ndax yàlla nitam daf koy préparer boo tàmbalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla nammee kenn du ko mën a xas ci dara def ko tàmbalee ci Adnaan di ko waajal ba ci Abdullahi mi nga xam ne moo ko meññ ñoom ñëpp ñuy ay nit yi yoo xam ne nit yi qualité leen sëriñ tubaa xaadimul moustapha it boo xoolee la ko tàmbalee ca maam ousmane ba ba ngay jaar ci maam maharam ba jëw ci maam mbalaay sa midim caatam ba ñëw ci sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ñëw ci sëriñ bi dangay gis ne maamam yooyu yëpp ak way juram yooyu yàlla daf leen a waajal noonu la ko defee soxna Maymuna mi nga xam ne moo meññ soxna Bali yàlla waajal ko ci ab juddu ci kër ndey ak ci kër baay boo delluwaatee ci tafsir ma ndumbe maar mi nga xam ne mook sëñ mbakke moor Anta Sali mosuñoo tàggoo mooy maami soxna Maymuna ca Bamba faa xujja ba agsi soxna xari daaru ba ñëw ci soxna may mi nga xam ne moo ñu boole ak Sëriñ Tuba waaye noonu la yàlla waajale soxna baali ci ab juddu boo xam ne wet gu mu jaar sëñ Tuubaa rek lay doon ndax bu dee doomi Cheikh Awa Balla sëriñ Cheikh Awa Balla di doomi maam Thierno Ibrahim borom Daarul Moxti maam Thierno ak sëriñ Tuubaa ñu bokk wenn way wu góor waaye ñoo bokk wenn wayjur wu jigéen ndax soxna Fati Isa ak soxna Jaara ñoo bokk nday kon yàlla waajal na ko ci wàllu kër baay juddu bu rafet noonu la ko waajalee kër ndey ndax soxna may Maymuna rek ngay delluwaat di Serigne Touba Serigne Touba di maamam ñaari yoon di maamam ci kër baay di maamam ci kër nday kon yàlla waajal na soxna baali ci ab juddu mu feeñ jamono it ginnaaw boo xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim yaral na boppam soxna may Maymuna ba màgg ci ay loxoom ba mu yóbbu ko ca loxoy Serigne Cheikh Awa Balla jox ko ko. mu nekk fa yàlla dogal foofee la soxna Bali feeñe ci atum 1942 jàpp 43 waaye bu feeñee jamono it xam nga ne booba dara xewut lu weesu jàng alquran ci góor ak ci jigéen ñu daadi koy tàbbal ci daaray alquran bokk na ko ak mbokkam mu tedd mii di soxna may a Galas ñu bokkoon jenn daara ñu yor leen ci daarul mooti nag ñu boole jàng ak tërbiyewu ndax booba dañoo boole jàng ak liggéey ba yàlla dogal mu dem ba dëgër ba mat a dem kër ñu daal di koy teg ci loxol Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma xam ngeen ne Serigne Moudou Moustapha moo yar soxna Maymuna soxna Maymuna it bi mu demee doomam du man leesu fab ko jox ko taawub Serigne Mouhamadul Moustapha mu di euh, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma soxna baali foofu la nekk taxaw woon lool ak sëriñ bi waaye doonoon jàmbaar ñeme woon coona waaye ñeme woon it liggéeyub kër ba yàlla jox ko fa njabootam gi yàlla nañ fi yàgg lool te ànd ko wér mu di sëriñ Cheikh Abdoul Ahad soxna mi nga xam ne mooy seen mag ak sëriñ Isaaqa yàlla na yàlla yokk ay leeram soxna Bali wuutu soxna May moona ci liggéey la laylatul xadar waaye nekk ak soxna May ci liggéey bi di ko dund ca daaru daarul moxti di ko dund ca daarul wahab di ko dund ak moom itam ba mu andi ko Touba musta tekki ak laxasaayam musta ittewoo ku ko xam musta soxla dara lu weesu rek topp ci ginnaaw way juróom woowu di jàng liggéey bi waaye di ko wu loolu dana gën a leer ci biir waxtaan wi ci kanam yoo xam ne ay bokkam yi nga xam ne ñoom la bokkaloon daara ji seereel nañ ko ko te muy jëf ju rafet soxna Bali nag ci liggéey boobu la nekkoon sëñ Gànna dundal ko ginnaaw juram ba yóbbu laylatul xadar foo xamante ne bii neewaana e, ñu gis taxawaay bu mel noonu ci jigéen ba fépp foo xam ne soxna May amoon na fa nit nit kooka soxna Bali téye na ko ba noppi wutu nitu boppam loolu feeñ na ci dunduk soxna e, soxna Bali ci li daan daje fii ci ay doomu aadama ci incha allahu rabbi danañ ko gën a yaatalaat ci biir jotaay bi ay nit yu bokkut ay wàccuwaay ba noppi kenn ku ci nekk sa wàccuwaay boo agsee soxna baali jox la ko ki yor siwop bisaab di ko andi ak ki yor enveloppe boo xam moo xam mu jóge ci président wala mu jóge ci boppam ñooy bokk benn wàccuwaay bu ñu agsee kenn ku ne doo mer ca da yaakaar ne yow rek la soxna Bali jox jox ab jox àqam kon loolu ak ràññee la ak ko ak ak xam xam xam responsabilité ak man nit ak xam responsabilité bi mu gàddu te incha allah bu waxtaan wi gën a yaatu dana ci feeñ kon damay bàyyi sëñ gànna mu ñëw ci jëmm ju sell jooju nga xam ne tey jii moom lañ fas yéenee fàttaliku waxtaane waat ay jikkoom waaye waajalaat nag lii ne ci suñ kanam te muy laylatul xadar ji jëkk ginnaaw soxna Bali eh, ca dañu wax ne kollëre ginnaaw lay féete ca liggéey bi Serigne Touba moo ko moomoon ñu daan ko ko liggéeyal ba noppee gis soxna Maymuna di ko ànd ak soxna baali tey jii soxna Astu nekk fi ànd ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad ak seen nijaay sëriñ Mourou Mahfous yaakaar naa ne fu soxna baali defoon benn danañ ko def fukk ndax fu soxna May defoon benn soxna baali def na ko fukk kon ñu bàyyi kàddu gi ak Serigne Gana Mesre Maxtaar bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu moo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu xaq di leen baal di ñaanal a cheikh muhammadul muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te weral ko ba lépp lu mu naal yéene koo lëggeel a cheikhul mu defe ko ni mu ko bëggee di ko ñaanal kilifa diine yi ak jullit yi ak taalibe yi euh, Sëriñ Fallu noo ngi leen di ziyaare bu baax di sof sunu nuyoo ci sa nuyoo di nuyu soxna assu di nuyu Cheikh Abdou Lahad waaye di jaarale nuyoo bi Cheikh Mahamadul Mahfouz di sant yàlla it ci jataay bu am solo bi nga xam ne noo ngi ñëw seq ko ak yenn ngir bis bu am solo bi nga xam ne moo nekk sunu kanam muy bis bi nu nijaay sëñ Fallou Gilas si la baaxoo amal di ci sant sëriñ Modou Rokhaya te mu nekk gaaw bii nu dëgmal euh, ren jiit ni mu ko baaxoo defee xam ngeen ne daaw bis bi ñu ngi ko dara jaale woon di ci fàttaliku Cheikh Sidil maxtar taxawaay bu am solo boo xam ne Cheikh Mamadou Moustapha ak njaboot gi yépp taxaw ko ci yàlla def tey jii nu toog ci ëtt bii nga xam ne mooy ëtt bi soxna Maymuna mu jëlaat bis bi delloosi ko ci soxna su baax si nga xam ne ñi ngi koy jooy te noppeegu muy soxna Baali ñu ñaan yàlla sunu boroom mu gën a dolli ay ngëreemam e, te dëgëral njaboot gi nga xam ne ñoom la fi bàyyi e, soxna Baali nag ku koy waxtaane wala ngay fàttali ko ay jikkoom wala nga fàttaliku ay meloom loolu lépp day delluwaat ci li ñuy tuddee tedd ngay jikko wax nga ko léegi suñu borom daf ko tànnal way jur yu baax askan wu sell léppam day dellu di sëriñ Touba ndax boo nee soxna Bali na soxna may Maymuna na Cheikhul Xadim loola doy na sëkk ca la ngëneel mën a yem ñu di ay sang di ay shérif te boo toppee seen calla la mu dellu ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam way juróom woowu di soxna Maymuna it kenn ku ne xam tey ji cër bi ko yàlla may ci kër Serigne Touba féetewoo gi doon gim doon doomi sëriñ Touba waaye téewul nag mu amaat cëru boppam boo xam ne cërub yàlla te moo di buñ ne laylatul xadar xel yépp dem ci soxna Maymuna loolu nag may gu yàlla may sëriñ Touba la soxna may it léppam doonoon sëriñ Touba la ko benn bindkat doon wax ba mu koy tàggale naan ko xawluka fi cheikh alxadim xubbika fi cheikh alxadim fialuka fi cheikh alxadim anti xabibati alxadim say wax lépp yow soxna may bëgg sëñ Tuubaa la say jëf yëpp bëgg sëriñ Tuubaa waaye it nag yow yaay soppeeb sëriñ Tuubaa koo xam ne nag say wax ak sa bëgg ak sa jëf lépp sëriñ Tuubaa kon bu fekkee ne moo meññ soxna Bali mu mel nii dañuy wax loolu jombul euh, mu tànnal ko it jur juru baax bu ñuy wax Cheikh Sidi El al mashhur bi Serigne Cheikh Awa Balla Ya Ghaffar ma nga xam ne rek doyoon na ci la ko Serigne Abib ba waxoon na ko Cheikh yow diine jëmu la ak bokk jëmu la yoonu murid bi nga nekkit jëmu la te loolu mooy ak mat waaye danañ xamee ci wax jum daan waxit it ma des na ci xamee soxna Bali Serigne Cheikh Awa daan wax ne. man cheikh de bu ma amoon golo it bu jaabee ci biir golo yi ku ko gis xam ne golo cheikh ndax yàlla may na ma loolu wax na it ne lu ma nit ma jëkk am man nga ma ko jëkk am waaye bu ma ko amee gënde la te loolu cër la bu ko yàlla jagleel ci digganteem ak boroomam daana wax it Serigne Touba xëyewul kenn gonte ma kon loolu cër bu rëy la bu ko Serigne tubaa may te Serigne Touba moo waxoon bis booba Serigne Cheikh Balla dafa ñëw njaareem bay ñibbi tawat dal ko ci yoon wi bi ko ci sëñ bi sëñ bi ne dara dalu ko yi may séddale léegi-léegi dama koy def ñaar seet jox la benn bi téye benn bi ëllëg cheikh nag dama boole cër yëpp def ko ci moom loolu rek a diis ci yaram bi ko loolu cëram la kooku moo nekk way juróom muy Serigne Cheikh Awa Balla waaye kon bi ko yàlla tànnalee way jur yu baax yooyu it tànnal ko melo yu baax yooyu moom it dafa yor ji boppam moom soxna Bali ndax tey jii boo ne woon soxna Bali rek jëfam ak melowam da koy dakkantal ba boo ca boolewul moom Cheikh Awa Balla wala boole woo ci moom soxna Maymuna moom jëfam mottali na ko ba boo nee soxna Bali ñëpp xam ki mu doon ci jikko ju rafet ak jëf ju rafet ak doxin ju rafet waaye ak njàmbaar nag ndax njàmbaar mooy wuutu ko baax muy wuutu ku mel ni soxna may Maymuna doomi Serigne Touba garaatam fi mu toll ak bi nga xam ne kenn melut ni moom cofeel gi nit ñi am ci moom di daw di ko wuti ku ko wuutu mbooloo ma dolliku lam doon def nga gën koo yokk defal ko ak bëggam soxna Bali boo amuloon lenn lu muy it ci yeneen jëf waaye bëggu soxna may gii te doon ndigal mu yokkal ko ko yóbbul ko foo xam ne fa la soxna si bëggoon mu yegg fa loolu rek doyoon na ci digganteem ak boromam waaye mu nekkoon koo xam ne it dafa amoon beneen cër xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax ne ñeent ñii moom faaw nu mus àjjana mu nekk ci jëkk nag mooy ki nga xam ne day wattu aw làmmiñam koo xam ne du wax ay safaan du ca dugg waaye ba ca topp mooy mut amul jiyaan te mooy leele aw ñam te ku xamoon soxna Bali xam ne ñaari jikko yii yan la ci ay jikkoom mooy néewoon na wax lool waaye foo ko mas a seen it la ngay jëkk a gis mooy bëñam muy xar kanam bu belli loola li muy wane mooy xol bu sell bi ak baax gi mooy feeñ ci jëmm ji waxtu wu nekk te leele aw ñamit bokk ci ngëneel lii gën a màgg ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dane nit ñi mbindee fii ñooy njabootu yàlla ki ci gën a gënal yàlla mooy kii leen gën a jëriñ te moom euh, bañ na ko ba li wax sax soxna baali borom bool yi ngir mënoon a joxe aw ñam ci waxtu wu nekk nag du rekk dana naañ màggaluk laylatul xadar dafa ñëw soxna baali di bernde wala muy dénale waaye waxtu wu nekk mi ngi mi ngi mi ngi joxe ay xéewal di bernde nit ñi di leen bégal waaye mu nekkoon koo xam ne it dafa yiw soxna su yiw la woon soo xam ne saa yoo ko masaane jàkk rek am na lu sa xol di yëg mooy ko ko mas gis bu waxagul ak yow dara it sa xol cofeel dana ca bàyyi jëm ci moom ngir yiw gi nekk ci moom ak dal gi moom xàmmeewuloon it ku mag ak ku ndaw kenn ku ne la moom ci yow la lay jox man de daanaa ko nuyu waaye lu mu xat-xat dana la won ne yow de sama goro nga ndax sëñ maxtaan la mu def ba léegi yow ci ay xat-xat won la it mbégte moo xam ne dana la melo waaye mu nekkoon koo xam ne moom soxna si kenn mësta jàmbat wala mosoo dégg ku ne man de keroog ba ma leen soxna Bali dafa maa gëdd wala daf maa toroxal wala daf maa béccingel wala dama am yitte ñëw foofu moom te faju waaye képp koo xam ne mas naa ñëw fi moom rek loo tawat lu nekk mu mu fajal la ko waaye mu boole ci nag weneen melo te mooy melo wu gën a jafe te mu laxasa na la boo xam ne digganteem ak i bokkam ni mu jëflanteeg ñoom li ko yàlla may ci daraja may ko ko cib cër may ko cib sag ci wàll yi mbokk yëpp waaye teewul mu nekkoon ku wàcce boppam ba mënoon a jaxasoog ñëpp moo xam muy ci góor moo xam muy ci jigéen foo ko fekk boo ko fekkee ci tuuba boo ko fekkee ci Daarul Muxti yi boo ko fekkee ci benn béréb bu mën a doon ñam jaxasool ci ay bokkam loole lépp jikko ju rafet rek ak tedd ngay jikko la jaxasoog ñoom moom soxna soxna Bali waaye mu nekkoon koo xam ne yi dafa doon noon maamam muy soxna jaaratullahi ma Mariama Bousso ci ay jikko yu sell yoo xam ne moom la ko jël mooy mën a muñ bari kersa rafet jikko teey wax te néewle ko nekkoon koo xam ne it ku mënoon a lëlu lu ci ab nekk waaye lu mu fay nekk tudd yàlla jàng alxuraan ni nga miine soxna may Maymuna ci boo gisee ab portaleem gis kaamilu alxuraan bi ne ci loxoom loolu ngay miin ci soxna bari Mbakke nga xam ne waxtu wu nekk ah, yéene gi mu yéene jàmm ñi jàmm waaye dalal gi mu leen di dalal nekkoon ku dal koo xam ne ah, moom de nekk na fi di dund ba wane ginnaaw ci zahir waaye kenn mënul teg baaraam ci ne soxna si dogon ko nangam wala moom da nekk na fi bu jóge waaye nangam déedéet kenn ku nekk keroog bi nga yëgee ne soxna Bali génn na àdduna yow la nga jëkk a yëg mooy baax dem na ngor dem na diine dem na sàmm dem na baax dem na nekk koo xam ne it moom kenn du wax ne bu doon góor a moom soxna baali ndax kay lan la fi soxna may li fi soxna may bàyyi woon demal daal waxaab lu fi soxna may bàyyi woon demal feneen ba ci tey jii laylatul xadr gii buñ ko tuddee ni muy mel melawu rëy woowu maam nga xam ne bari na ay dawaa dawaayir yoo xam ne nii moom moom lañ ndayale woon seen bopp ndax jikko ju rafet ji nga xam ne nekkoon na ci euh, soxna Bali kenn mësu koo dégg ci wax joo xam ne da nga naan soxna Bali moo ko wax waree su ko wax wala jëf joo xam ne da naan soxna Bali moo ko jëf waree su ko jëf waaye loolu nag euh, lim jurit mooy li ko yàlla fayee gis nga bi mu fi bàyyi ko waxtu wi mu doon jamono bi mu doon ak la ca ne ak ni ko suñu borom suturaale ci melo wu mën a doon wu nekk nga xam ne bari na ñooñu sax ñu ko xamul bu ñu gisee xar kanam bi buñ ko génnee ci télévision wala ñu génnee ko ci ab portable nit gis ko la muy jëkk a wax kii de moom ko baaxal la ndax xoola kanam gi ni mu bellee xoola leer gi ci nekk nga xam ne ëmbal jàmm ñëpp yërmande ak cofee rek la mu nekk koo xam ne it kon melaw rëy woowu ko yàlla jagleel tedd nga jooju la ko yàlla euh, defal macha allah jërëjëf sëñ Gana yaakaar naa fi nga joxe kàddu gi danañ fi dellusiwaat tuuti rek ndax da nga wax ñaari tomb yu am solo mooy mën a sàmm ak néewi wax te am le ko njariñ euh, pas-pasu soxna Bali ci Sëriñ Tuubaa dafa bari lu mu lu mu jël ci soxna May te loola soxna May jëlee ko ci Sëriñ Tuubaa euh, ci kàddu yi ñu doon jël ci témoignage ci kilifa yi rek. Eh, sëriñ Cheikh Anta mi ngi wax ne soo masaa gis soxna may ree ji ngay njëkk a gis ci moom ca loolu day mel ne daf ko daf ko wàll soxna baali mu ne nitu yàlla nag bu nekkee ci liggéey bu métti wala mu nekk ci xetma bi nga xam ne mooy liggéey bu jëm ci yàlla nga gis muy bari ay ree ca ree ja du ree caaxaan ree la joo xam ne mi ngi koy bànneexoo ci jëf ji muy jëf nee na loolu lam lam lay tegtale mooy sun borom da koy wan payuk la muy jëf moo tax day ànd ak mbégte waxtu wu ne di nitu yàlla dëgg buy jëf day jàkkaarloo ak pay ga moo tax da cay sawar yow mën naa am nga dem ba tàyyal te fekk na moom li mu gis dafa sedd xolam ba tax muy ree waaye soxna baali lu lu lu mbir lëj lëj lëj ak lu mu am am lu ko soof te daana ko am lu mu am am lu ko naqari te daana ko am doo ko xàmmee ci ab xar kanamam doo ko xàmmee ci ki muy waxal nit ki mën naa dikk tooñ ko def ko loo xam ne dara safu ko ci waaye ci biir mbooloo mi doo ko ci xam nanguwut ko toroxal doomu aadama te mënoo xam ci moom li ko neex ak lu ko naqari saafara ci fayda la koy saafara ak farata joo xamante ni bii mer du ca ànd get du ca ànd loolu tedd ngay jikko la waaye beneen bi ci des mooy eh, li mbooloo mi bari bari pas-pasub soxna Bali ci sëñ Touba eh, boo xoolee nit ñi daan daje si fii moom ay nit yu bari la yoo xam ne ay catégori la yu bokkut ay catégorie yu bokkut nit ñi nga xam ne ñoo xam ne dañuy ñëw bokkun ci diina ji bokkun ci diina ji waaye lan moo leen fi daan andi mooy yaatug soxna na soxna Bali doon ko ci moom ba xa nit ki day jàpp ne rek borom moo bind doomu aadama ji teral ko te li yàlla bind lépp doomu aadama ko ci gënal mu ne teraanga jooju yàlla def ci doomu aadama ji nit ki moom ko téye ngir li mu doon nit wala xadd karam naa bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaat kon ginnaaw doomu aadama ji yàllaa ko teral faww bu agsee ci soxna Baali ko teral moo tax nga daan gis ñoo xamante ni bii doon ay jullit ne mooy seen ndey dañuy mel ne mooy seenub sëriñ waaye xam ne genn wàll gi duñ doon ay murit ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bu dee ci wàllu jigéen ñi jàppe nañ soxna baali muy seen bàjjen wala muy seen yaay bu dee ci góor ñi jàppee nañ soxna baali muy seen càmmiñ wala muy seen muy seen ndey loolu lan moo ko waral mooy doomu aadama dafa bëgg njariñ doomu aadama dafa bëgg boppam muy li li ñu wax ne moom moom la doomu aadama gën a bëgg as gor boog moom la ab sàcc gën a gën a gën a bañ lu doomu aadama as gor gën a bëgg mooy ku ko yëg lu ab sàcc gën a bañ mooy ku ko yëg soxna baali nag dafa amee woon dafa amoon ak yëg dafa amoon ak yëg lool ci doomu aadama ba boo agsee ba boo mosaa toog ci lal bi da ngay gis ne foto yi ko wër ak lal bi dañuy toog a toog ba am du añaam fuñ ko toog waaye yow mbooloo day ñëw nga gis mu naan jàll si leen nañ leen xajal ñu jàll si te dana la wóor na ñii buñ agsee sax duñu am fuñ toog waaye dana leen wan ne rek ne bu ma mënoon a bokk yéen fii ma toog dama koy bokk ak yéen te loolu bari na ñoo xamante ne buñ demee ba sonn dangay ngay daal di xam ci seen xar kanam ne kii sonn na waaye soxna Bali mu sonn ak mu mu mar ak mu xiif moo yem ci moom doo ko mën a xam ci xar kanam bi waxtu wu ne mi ngi koy belli danaa ci joxe benn misaal eh, laylatul xadar ji nga xam ne daf ko doon génn ba tollook bunt bi yàlla dogal mu miir nga xam ne jotut a daanu waaye dañ koo gàttandu biñ ko yóbboo ci biir nee bi wallahi alazim heure bi baram bi dafa damm baaraam bi dafa damm waaye te ne suba la laylatul xadar ñu ne suba la laylatul xadar nga xam ne moom baram bi mu mënatut a laal suuf waxuma la baaraam bu faxaj képp bu ko nit ki amee waaye soxna Bali baaraam bi dañ koo takk noonu waaye teewut bis bëccëg bi da koo génn toog munta déplacé ndax tànk bi àgg na ci munta dox waaye dañ ko génne dafa fajar la génn toog ci lal bi dafa toog ñu fanaanee laylatul xadar ba fajar ja ba ca fajar ja Cheikh Abdou arrière oto bi fii soog ko yóbbu Dakar nga xam ne métit woowu li muy miti doo ko xam xàmmee ci soxna Bali fi mu toog wàcce mi nga xam ne eh, dañuy toog ci wetam ni Thierno Cissé ngi toog ñeneen a ngi toog ci wetam du ñu nangu lu jege tànk bi waaye booba tànk bi baaraam bi ci ci ba guddi gi rek la la baaraam bi gaañu waaye mu wax ne ma njabootu sëñ Tuubaa yi di ñëw laylatul xadar andi leen fi du ma leen layal lenn lu weesu damay muñ métit wi ba laylatul xadar jàll ñu dafa faj ko loolu kon ak njàmbaar da nga ko xamee ci moom te li nga wax ne bu du wax ne bu ma doon góor loolu góor gu yaafus sax bu ko daloon mu dem tëdd ci ab néegam sàkkantumaak jigéen joo xam ne fam toll ci yaat loolu dund na ko fii muy muy lu méttee métti beneen bi ci topp mooy njabootu sëñ Tuubaa gi niñ ko defoon nga xam ne moom ñoom ñoo bokk soxna may laylatul xadar ñoom ñëpp mënoon nañ ne soxna may kat bi mu fi toogee dañ ko bokkoon ak moom daan ko dund waaye ginnaaw soxna may yittey soxna baali ci ñoom ak yëg gum leen yëg moo tax kenn ku ci nekk da jàpp ne soxna may jógewul ci kër gi ngay tàmbalee ko ci sëriñ Abdul Fatah mi nga xamante ne bii day day mel ne laylatul xadar bis la boo xam ne moog bisu kazu rajab ñoo am ci moom ni mu koy waajalee ku mel ne soxna may garas nga xam ne muraaki mi mu daan defar ci jamonoy soxna may dina la wóor ne lim mujjoon di ko indi ci soxna baali fukk ci na lam daan jox euh, soxna may mun a te buy dugg ci kër gi ñoo bokk sëñ fàllu bokk soxna may waaye buy dugg ci kër gi du sol aw daal day summi daal yee ci butti boo waxee mu ne man si fekki baali soxna may laay fekk te te ak cër bi mu am ci ci ci ci ci ci sëñ Fallou loolu ay cër la boo xoolee ñeneen ñi mu bokkal sëñ Touba ñëpp itam cër boobu lañ ko jox ku mel ne soxna maam Fatim Mbacke ma réemaloo da ngay ne laylatul xadar da daan toog fii waaye la dara yóbbewu leen ko lu weesu yi ji eh, yitte ju leen soxna Bali jox ak jikko ju rafet ji nga xam ne sunu borom subhanahu wa taala jox na ko amul loolu nga wax ne amul kenn ku mas a wax ne bis sàngam kat soxna Bali def na ma nangam loo xam ne naqari na ma kenn ku ci nekk. Eh, ma nga lay ba noppi nag di la jariñ dafa waxoon baat bu am solo ci njabootu ba siru Saar ñoo ngi leen di siyaar bu baax eh, di siyaare bokki daay daayira yi nekk Dakar nga xam ne ñu mel ne eh, Adja bu Ndiaye ñoo ak aji leena ak ñañ ko seqal ñëpp ba ci Ousmane Tanor Dieng nga xam ne wëllëreem diggante ma Abdou Diouf boole ko woon ak soxna May mu teg ko ci loxol soxna Bali mu di ko dundal ba ci laylatul xadar ju mujj ji soxnaam day jiitu si am fi ay fan waaye lum xat bisu laylatul xadar da nga koy fekk fii ku mel ne xalifa sàll noonu lay demee bis bu set njabootam day wax ne man soxna Bali mooy sama ndey ca loolu lan moo ko may soxna baali mooy jikko ju rafet ak mën a jaxasoo nga xam ne kon léegi xàmmeetut sax murit bi ne ci biir kër gi ak tijaan ba nekk fële ak chrétien ba kenn ku ci nekk boo accès ci moom dana la jox wàcc waay boo xamante ne bii dana la wóor ne dara desut ci li doon def ak yow waaye bis bi mu doon woote sëñ nekk bis bu am solo muy laylatul xadar laylatul xadar soxna may dañu cee wutal occasion boo xam ne xayrun min alf shahri la la la la la wax mu mel ne bu ko soxna may woote wutoon nii ci tuyaaba ji bare nga xam ne soxna si dana toog soxna baali léeg lek weeru koor bay bëgg teru dalay woo nga ñëw mu ne ah laylatul xadar da ngi bëgg a teru waaye ñaan leen mu ne ci fan yu mu ya mu ne ko ah soxna si loolu day métti di mu ne déedéet tuyaaba ji daa daa bari xam nga weeru koor teru rek mu ne ci fan yu njëkk yi day mel ne li nga ci doon def ci xeeti bernde ak li nga den daa dimbalee nit ñi day gaaw a jeex bu ma sañoon day nekk ci ñaar fukki fan yaak nangam nga xam ne weer wépp da nga ko mën a màng ci di dimbalee nit ñi loolu ca tey wax ne lépp lu ñu indi ci laylatul xadar it kenn du ko natt asaka ndax bu ma xëyee nu mu mën a toll rek danaa ko séddale njabootu sëñ Tuubaa gi loolu ñeme dépense la ak ñemeeg njaboot waaye xam responsabilité ak nag dundal guddi goo xamante ne bii moo gën ci ñun guddi yëpp waaye soxna Bali nag kenn nattab wut ne bu fi soxna may bàyyi woon téeméeri nit yóbbu na ko ci junniy nit yoo xamante ne bii yittey boppam moo leen ci indi am na ñuy ñëw ci laylatul xadar ñoo xam ne dañoo dégg soxna may waaye xamuñu ko waaye dem nañ ba àgg ci fu turandoo soxna may nuyoo turandoo soxna baali nuyoo fa am na ñuy tudde soxna baali ay doom yoo xamante ne bii laylatul xadar ba laylatul xadar la ñuy gis soxna baali ba am na ci ñoo xam ne xamut sax seeni wayjur waaye dara waralu ko lu weesu tedd ngay jikko ji nga xam ne ànd na ko ak doomu aadama yi kon loolu damay ànd ak Serigne Cheikh Kebe mu jege si yaakaar naa ne dund na ba tàyyi laylatul xadar di jege soxna si defar ay enveloppe ànd kook sëriñ Mudu Mahfous ñu yóbbu ko ci daaray alxuraan yi li ko gënoon a ñor gënuñ koo yitteel sax dangay gis ne bu laylatul xadar masa aksi ku ko jox ab enveloppe bu mu mën a doon da ngay gis mu jox ko ki mu dendal waaye saa yoo ne jëyi kaamilub alxuraan da ngay gis ne mu nangoo ko ñaari loxoom ubbil ko boppam jàng ci ay aaya dana jàng ci téerab kaw bi jàng ci téerab suuf bi sogo sogo ubaat kaamil bi fóon ko soog la koo jox na la yóbbul ma ci bibliothèque ba wala yóbbul ma ko ci biir loolu moom ko xam soxna Bally xam ne lu laylatul xadar xat xat xat xat kaamilu alquran boo ko jox dana ko ubbi ubbi téere kaw bi jàng ci ay aaya ubbi ci digg bi jàng ci ay aaya ubbi ci suuf jàng ci ay aaya su koo tëje loolu li muy tegtale man alquran waaye bëgg alquran yoo xam ne bëgg na ko alquranul karim bu dee xasida it fa tabarakallahu noonu la ko daan defee boo duggee ci néegam bi da ngay xool ne eh, bibliothèque bi Eh, alxuraan jaa ngi tegaloo ak xasida yi dara du ci manqué waaye li gën a yéeme nag mooy laylatul xadar ak ni mu daan xate ak li fiy daje ci doomu aadama waaye fu waxtu wi jotee moo la koy xamal tisbaar jot na tee ngaa ñaanal mbooloo mi ma dem julli ji tàkkusaan jot na tee ñaanal mbooloo mi ma dem julli ji loolu mooy li muy tegtale kat mooy waxtu borom bi subhanahu wa taala mooy li gën a farata te soxna baali lu mu xat xat xat bu waxtu wi jotee bàyyi na lam doon def lépp jóg dem julli ji kon kooku li muy teg la ne jullit àqan la woon waaye murit saadix la woon damay bàyyee kàddu gi ak Serigne Cheikh Kebe ñu jaare bu baax a baax turandoo yi di ko jaarale ci soxna May moom Serigne Modou Fati Xari eh, di siyaare bu baax a baax soxna Bali moom Cheikh Mahamadul Muntaxa waaye di siyaare mboolem turandoo yi nga xam ne ci eh, kër soxna may Maymuna gi lañ leen xame woon te nu yaroon fi soxna may moom ma Cheikh Mamadou Mourtada ak mboolem mbokk yëpp kon ma joxaat kàddu gi eh, sëriñ mm, Cheikh Kébé waaye ñu bàyyi xel ne bàyyi Mbay Sarr doon jëwriñu laylatul xadar ca jamonoy soxna may ba nëga ni mi ngi toog sëriñ bàcc mbeng mi nga xam ne doomam ci ka nekkul soxna may lañ tuddee doom ja laylatul xadar moom mi moo jur laylatul xadar kon ca dara waralu ko lu weesu dund gum doon dund soxna euh, laylatul xadar di ko ànd ak soxna Maymuna kon ma jox kàddu gi sëriñ Cheikh Kébé ahousu billahi min asheytaani rajimi bismillahi rahmaani rahim yéen bokki jullit yi bokk taalibe yi gannaaw bin sante subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla yàggal fi lool ci wér ba li bëgg a liggéey sëñ Tuubaa mu liggéey kenn ànd ko moom eh, di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mahfous Mbacké mi nga xam ne tey mooy kilifa kër gi di ñaanal tim jëwriñam di sama sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ñaanal maam Cheikh ak soxna Astou Mbacké di leen ñaanal rek ndoona lii nga xam ne doon nañ ko fi muy laylatul xadar ñu jëlee ko fukki ëpp euh, fi nga xam ne soxna si bàyyi na ko fi ñu yóbbu ko fukki ëpp ndaxte yàlla mën na ko yàlla na ko def euh, ndax laylatul xadar bi nga xamee ne soxna may euh, jóge na fi ñu bari bu njëkk dañoo gëlëmoon def na liggéey bi fi lay yem waaye ñooña dañoo xamul ne am na lu wolof yi daan wax galaaw gannaaw bi nga xam ne ñun daan tudd sëñ tubaa di ko tudd jóge na ci wax jooju booba ko soog xam dëgg-dëgg muy sëriñ tubaa amul tànk gannaaw tànk kanam nga xamee ne soxna may jóge na ñu bari gëlëm nañ daayir yu bari xaw nañoo kii waaye bi nga xamee ne maanaam soxna si jël na liggéey bi ak ak ba tey jii àggal na ko foo xam ne wax dëgg yàlla bu ne laytu xadr soxna si yóbbu na ko soxna may yóbbu na ko ci fukk soxna baal yóbbu na ko ci téeméer ca ànd koog waa njabootu Serigne tubaak gépp ànd kook jullit yëpp ànd kook dëkkandoo yëpp ànd koog bokk yëpp ànd koog dawaay yi yaakaar naa ne euh, Serigne Gallas wax leen ko xam naa fekkewuma ko waaye war na leen ko wax bi fi soxna si jóge dawaay yi téeméer ak ñeent fukk yi teg la waaye bi nga xam ne soxna soxna baal jógee na fi dawaay yi wax dañu mat ñeent téeméer yu teg. kon loolu yaakaar naa loolu ak yokkute la ci benn daayira boo xam ne bii yónnee na fa ne nañ sos daayira ba nañ ko sos daayira bi amul kenn ku nekk yaay dégg ci rajo bi wala nga seetaan ci télé bi gis loola doy nga dikk ne soxna Bali damaa bëgg euh, sos ab daayira ànd ak yow liggéey Sëñ Tuubaa mu ree la kontaan lool euh, soxna Bali nag wax ci moom daanaka galas da ngaa baax waaye ku nekk boo xoolee su bopp rek man ngay wax ci moom ca bët seet doo ko jeexal man sama jëmu ci xeeb yi képp mi ma sol moo ko xotti at mu ku nekk ci kër gi dina la xottil mbubb fukki mbubb ak juróom-ñeent sol naa ko yoo xam moo ko xotti yóbbu na ma màkk jof ko nee def keneen def keneen noonu kon soxna si euh, diplomatie la kenn amul euh, wallahi lancim foo ay xewle ci bokk ci dabay ak foo mën a am bu yónniwul galas mi wala mu yónni ki man bi dana ma woo diw de daa xewle damaa bëgg nga ñëw demal ah nit kat jëmmam ak bisam ak kilifaam loolu la daan wax nit jëmmam laam am bisam kilifaam ku fonk jëmmam fonk bisam fonk kilifaam wàccoo nga ak moom soxna Bali noonu la daan def bi ci ji rek mooy ñoora ñoora dirib soxna si na ma fa yaakaar naa bi ma fi yónnee ak bi nga xam ne dem naa dem na wàcce na ba liggéey ëppul fukki fan ak juróom ci am naa fa ñaari fan àllarba alxames am njaal yu ma fa am njaal yu ma doon jaalloo kon euh, na ko soxna si daan defee laytu xadar noonu la koy defee noonu lu ko daan defee maanaam tàmbali ci alxuraan yi maanaam ñun daal di alxuraan yi xam ne maanaam nekk nañ ci Sénégal aju ci yoonu mu murit ak yi aju ci yoonu murit sax fu nekk dafa daan yóbbu teraanga wax leen na leen nañ jàng alxuraan te ñaanal soxna may ñaanal njabootu Sëriñ Tuubaa gi ñaanal askanu lislaam yëpp ndax soxna may euh, soxna bari nekkul woon nit koo xam ne ki da nga naan fii la bokk la bokk. Euh, dafa nekkoon euh, loolu ñuy wax nit koo xam ne dafa nekkoon universel dafa nekkoon ko universel universalité googu mu amoon moo tax amuloon frontière ndax kër gi amoon na ko dëkk ab ab laayeen amoon na fi kon loolu mooy wax soxna si ubbi ko gi nga ne moom la ubbeeku boo xoolee kër gi nii nga xam ne moom xale yi ni toll ba fi soxna si jógi moom yokk na bu baax a baax a baax ndax soxna si njariñ li mu am moom ci boppam di jëmmam wax na ma ne man de seex bi set su ma fi nekkee danaa sóor juróom-ñaar fukkile ceeb ak juróom ndax waa kër sëñ Touba yi xalifa bi chaque jour bu fi nekkee dana tibb tibb ay ndap yóbbu fa seet si njabootu sëriñ Touba ci xalifa yi mu seet nga yóbbu fa noonu la ko daan doxale ah, soxna seeti mu xam moo fi nekk tàmbali na ko yàlla na ko àggale lool seet ànd ko moom ci barkeb sëriñ Touba kon sëñ Fallou ah, soxna Bali daal buñ ko bëggee wax daal dañ naan mooy laylatul xadar ndax yow dund nga lépp lépp lépp li ma ci dund dund nga ko bu laylatu ndagani si bu jot doo am doo am doo am jàmm man mi du am jàmm keneen du am jàmm kenn ne waaye loolu du lu yéeme ndax euh, ndono lu tool loo xam ne lii mooy laylatu xadar xayru min alf shahrin euh, soxna may wàccale ko màggal ko juróom fukki at yu mat sëkk sëkk sëkk nga jël ko dem ba àgg foo xam ne fii ba su fa àgg wax dëgg yàlla da nga ci téye sa loxo ba mu xamee euh, noon la ko war a téye mu ànd koog nag waa dëkk bi ñëpp ànd koog taalibe ñëpp ànd koog yéen wax dëgg yàlla galas fàllu galas bu bu sante presse bi ci yow lañ war a jaaral cant gi nga àggale ko fa def ngeen ci wax dëgg yàlla yéen it loo xam ne lii fu mu àgg àgg ngeen ndaxte léegi ku monopoliser presse am social am diplomatie man ngaa wax ne adduna léegi yaa ko moom ca loolu yàlla dimbal nga dimbal nga ci kër gi dimbal nga ci yoon wi ba lu xew ci yoon wi rek ña war a dégg danañ ko dégg ña war a yëg danañ ko yëg. jërëjëf sëñ Cheikh Kébé. jërëjëf itam sëriñ Gànna messre Maxtaar ci kàddu yi mu yëkkati itam am solo lool ñuy jaajëfal itam bokk yi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel ci rajo yi lu mel ne rajo Lamfal FM 101.7 ca Dakar rajo Lamfal FM 97.4 ci Touba rajo ICAP FM Université Cheikh Ahmed Bamba di ko def direct euh, rajo itam euh, Benno FM waaye SIC FM ak SID FM. waaye ak Touba Mbacké FM ak Baol Média ak site internet yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom tañ di ko def euh, direct euh, Soxna Bally li nga ci andi ñu jaajëfal bu baax euh, Serigne naa agsi na léegi ci turu Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma te mu bokk ànd ak moom liggéey bi moom it di sëtub soxna May na ndax juram di soxna May moom sëñ Modou Fati Khari Serigne Modou Fati yi soxna May mii la ko duppee ba noppi cërale ko ko. mu yaral ko boppam lépp lu mu lu mu xam ak lu mu man ci kër gi la ko mane eh, kër gi it la la la la lay lay lay mooy léppam daal ñoom ñëpp fii la ñu juddoo kon ci njaboot gi la ñu bokk bu fi Cheikh Abdou teewut mu mën ko fee teewal yore kàddoom loolu rafet na lool ñu ñaan itam way juróom bu baax wi nga xam ne tey jii mooy jëmmi sëñ Abdoulahi ci kaw suuf yàlla na ko yàlla yàggal lool te mu dolli ak wëram ba lépp lu mu bëgg a def ginnaaw sëriñ Cheikh suñu borom kàttanal ko ba mu ànd ko njaboot gi sëñ Cheikh wax nga dëgg sëriñ Soxna baali damay wax ne yi mu boole dafa bari ndax nit dañ daan wax ne bu barke baree xel manqué waaye Soxna baali barke bi nëbbut am xelam waaye baax gi itam yàqut fullaam te loolu lu jafe la dañuy wax ne nit ku baax dëgg day ñàkk fulla Soxna baali nag daa boole baax gu ndàndi goo xam ne ñëpp nangu ne baax na ba nag mu am fulla ju wóor yoo xam ne su su ne lay yemal fii rek du la ko wax ci kanamam ngay xamee ne waroo jàll fenn baadoola du ko dépensé te as gor du ko du ko du ko ragal eh, dana yar nit ci ay bëtam te du ko ko wax eh, xàmmee itam xàmmee xàmmee lool li moom ak liñ ko boole ak li yoonam nekkut lu ci nekk soxna Bally xam na ko te loolu eh, li mbokk mi waxoon rek ne bu la ku la ku soxna may jur sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma toqi la soo xamut àdduna jaaxal nit ñi ndax àdduna foofu daje na fi ba tàyyi yaakaar naa ne li daan daje ci àdduna ci kër soxna Maymuna mu na nga gis ko ci benn buntu kër la ko tàmbalee ci nit ñëpp nag koo mës a dégg rek ci réew mi tam am ndomb ak tànk daa ko dégg muy fe muy fréquenté soxna May te bu day mel ne rek lam bëggoon lépp yàlla def na ko ci soxna mu na nga xam ne loolu xàmmee nit la loolu yàlla da koo joxoon soxna Bali wàccuwaay yi nga xam ne boo daan ñëw fii ministres yi députés yi ambassadeurs yi directeur généraux yi ñëpp ñooy ànd ak daayira yi dafa am lu am solo loo xam ne ab seetlu la dafa am ñu daje fii ñu bari ñoo xam ne dañuy dañuy dañuy laaj ci laylatul xadar ji am nañ ci wàll muy ay ndimbal ay jigéen la ñuy doon ak ay góor ñu néew doole waaye bu daayira yi dee siyaare nga bëgg leen ne yéen ñii laaj dem leen taxaw ne bu leen ko waxati la lay wax bu leen ko waxati baal jàmbur yi da nga leen fee ëppale daal ne ceerno wutal loo leen jox nga xam ne ñooñu li gën a bàyyi jafe mooy ne ci situation yi toll noonu nit ñoo ñu wër la ngay bàyyiwaale xel ñu néew doole ñoo ñu war leen defal nangam ak ay ordonnance am na ñoo koo xam ne ordinance bi mu andi yàlla dafa dogal ne amul at moom ko dul andi ma di ko bàyyi xel nag ba mu andi ko ñetti at yoo xam ne benn ordonnance bi xàmmi naa nit ki bi mu dikkee raam ndànk ne soxna si ordinance bi soxna si daa di daa di ne Ceerno wutal loo ko jox mu mu mu jox ko ba noppi ma xool ko di ko bëgg a ree mu ne ma da ngaa xàmmi ordonnance bi ma ne ko xàmmi naa koy soxna si kii ordonnance bu daaw ba la mu ne waaye ci la mën a ci la mën a yalwaan moo tax ci ordonnance bi la mën a yalwaan xoolal loolu ak nite la waaye nag ko xam li ngay def la nit ki mën nay def lu baax waaye soxna Bali li mu am ci ak mujjam neewaa na ku doon wut ku doon wut laa wax de bis boobu ngay wut mooy sëriñ Touba bis bi mu waxal boppam ne ci bis bii laa amee lépp lu ma doon wut ci yàlla muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar Serigne tubaab bind na ko fu ne wax na ko nee na bu ma doon ci géej gi cey kon dara du nu jar waaye bu ma demee ba ñëw nag lépp daje ne waaye nee na keroog sëñ Alaaji Baara wax na ko nee na keroog bi mu war ci fasam ba ca ngelam ngelam moom ba ca Mbàkke Baar yi ga ca Jolof bi mu doxee ñaari jéego daf ne sun borom da ko feeñu ne ko loo bëgg mu ne ko lépp laa bëgg mu na ko jox naa la lépp kon ci bis boobu la sëñ Touba jote lépp lu mu bëggoon wax na it li yéen murit mbooleem lu ngeen di wut ci man ci bis bi ngeen koy amee ndax man ci bis bi laa amee mbooleem lu ma doon wut ci yàlla soxna Bali nag tànn dëkk liggéeyal yàlla ba yàlla war koo fay mu ne ko bis bi yàllay fay sëñ tubaa ci la soxna Bali di fayu ci sëñ loolu lu doy waar la bis bi yàllay fay sëñ Touba ci la soxna Bali di tàllale loxoom sëñ Touba sëñ Touba di teg ak payam ci loxoom kon yaakaar naa ne moom ak payam kenn du nattable ba xam dana ci jot wala du ci jot waaye li gën a yéeme mooy mënoon naa génn àdduna ba noppi duñu ko denc ñu denc ko tàkkusaan wala ñu denc ko bu ñëwee suba la màggalu tubaa waaye dafa dàkk bisu màggalu tubaa ba noppi dàkk yoor-yoor ba te sëñ tubaa màggal ga yoor-yoor ba la. soxna soxna Bali ci yoor-yooru màggalu tubaa ci lañ ko ci lañ ko denc. loolu mënoon na koo am ba noppi sëñ mun Muntaxa mii sëñ tubaa ñàkk jot yabal sëñ Fallu ndax man am naa ci lu leer ne soxna Bali bàyyi woon na xel. ci sëñ fallum sëñ Abdou Xaadir defe na moo koy war a taxawee ginnaawam loolu moom am naa ci lu ma leer lu mu bàyyi woon xel la waaye taw fee xam jure yi yoo xam ne yàlla bu ko ci jiitu fa jëm mooy mu génn àdduna ci bisu màggalu Touba yoor yooru màggalu Touba ki fi nekkal sëñ Touba jug demal boppam taxawu jil ko ànd ak sëti sëñ Touba yu bari yoo xam ne gis naa ci ñu bari ñoo xam ne bi ma leen bi biñ may wax dañ ma ne tey laa mas a xam yoor yooru màggalu Touba nu penc mi mel tey laa ko mas a xam ndax ndax embouteillage ak mbooloo ndakate ñoom daanañ màggal Touba ba màggal Touba jeex te xamuñ penc mi ni kan moo leen ko tax a xam mooy soxna Bali moom soxna Maymuna mi nga xam ne moo kon kooku damay bàyyee kàddu gi ak sëriñ bàcc mbeng yow dund ga ak soxna baali yoo xam ne ku ne nattable wut ne guddik laylatul xadar eh, cagri bi mu la daan def loo bisub laylatul xadar ndab yi nga daan togg daan ko dund ak moom su bàcc accès balaa am jàmm ne nañ woo sëñ bàcc ba mu agsi yaakaar naa ne ñàkkut kàddu yoo mën a seere sa digganteeg moom su ko defee ñu bàyyi loo xel dawaayir yépp nag ne eh, soxna may lañ fi daan fekk si ngir jëmmi sëñ tubaa ngir jëmmi sëñ sëñ tubaa mi fi doon fekk si jógu fi soxna may miñ fi doon fekk si jógu fi soxna baali mi fi nekkoon daa yaroon liggéey bi rek yokk ko waaye bu ko bàyyee ci loxol Serigne Cheikh Abdoul Ahad bàyyi ko ci loxol soxna Astou Mbacké danañ xam ne laylatul xadar bis bi soppiku wut mu daan doon weeru koor la daan doon nit ñi daan woor suba la ñuy xëy di woor fajar ba ngoon ñu dog loolu soppiku yàlla mi doon fay màggatul lépp loo xam ne amoon nañ ko ci jamono jooju buñ ko wutaale te ci jamono ji ñu dëgmal yaakaar naan lu ko fukk ci la am ndax pay ci lay gën a gaawee ndax da am pay soxna may am goog soxna baali waaye danga am goog soxna as soog sëñ Cheikh Abdou ak goog sëñ Modou Mahfouz kon sëñ Bàcc ma jox la kàddu gi. Ah, jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi lay siyaare di siyaare mbooloo mi fi teew ñëpp di siyaare soxna Astu Mbàkke ak sëriñ Modou Mahfouz ak sëriñ Cheikh maa njëkk a woote ci këram bi bi soxna bi soxna si génne àdduna man sant naa ko ndax la ma waxoon ca ba mooy woote ndax bi soxna si ne la bi am juróom-ñetti fan damaa dem ci barab yi ne soxna may maa ngi dem ci sa kër gi na ma fa jiitu na nga ànd ak man bi ma soxna baal yi mi ngi ci biir barab bi ma ba mu ma ah bàcc nga def si ma ne ko damaa siyaare mu ne ma duggal ci oto bi kon la ma ko ne nag ma fa jiitu nan ànd def na ko bi ñëwee ma woo waa kër gépp ñëw muy jigéen ñi muy xale yi muy gone yu ndaw yépp booba kenn ku ne jaaxle nga ma ne leen soxna may day jógu fi soxna may mooy soxna baali mii mooy soxna may bis naka tey yi soxna baal yi mii mooy Astu Mbàkke mii kon kenn ku ne fa nga xam ne fa saw daal daan yem fi soxna may nekkee na fa saw daal yem ndax jógewu fi yàlla dogal na loolee ma waxoon sëñ ab sëñ Saaliwu Mbàkke moo njëkk bind ab leetar def soxna may soxna soxna baali may mu ne ma ah, baat boobu de yaa ma ko njëkk a wax loolu sëñ sëñ Saaliwu Mbàkke moo ko bind ci leetar ba mu ko njëkk yónni ci laylatul qadar kon man damaa sant yàlla ndax li ma sant yàlla bi soxna si demee jaaxle woon na waaye bi ma wootee ba ñoom ñëpp teew ma wax leen loolu keroog damaa ñëw wax soxna si mu ne ma ah na astu de ma ne soxna si damaa bëgg dama la waxoon ñaan ngir jëmmi sëñ Tuubaa nga ñëw mu woo taalib bi ñu wax ak ñoom fii xam nga loolu ak woyof dëgg mënu koo paase te boo mooy soxna may waaye daf ma koo may ànd ak man ba ñëw toog nii mu woo dong yëpp ñu toog ma leen soxna saa ngi nii demul fenn kenn ku ne fa sax daal doon yem ba mu fi nekk na ko fi yemale euh, soxna may nag moom euh, wax dëgg yàlla euh, man li ma li ma li ma gis ci moom mu bëggee ko laylatul xadar fonke ko laylatul xadar moo tax ma am sama doom tudde ko laylatul xadar ndax loo ko mas a wax ci àdduna même bu màggal gi jàlloon tey nga di ko xub mu ne denc ko ba laylatul xadar diwén mu wóor ne ma kii ñor na ko loo wax mu ne laylatul xadar mu ne kii daal la may damay def daal mooy sama doom ma doom doom tudde ko laylatul xadar ci yàlla defal na ma sutura tudde ba ma koy tuddee moom dégg na ko ndax boobu maa ngi ci àll bi ma na ko ah soxna si sama doom ji laylatul xadr laa ko tudde mu ne ah moom nga koy bëgg a tudde ma ne ko ah waaw moom laa ko tudde mu ne ah loolu de kenn mësu koo def man ne loolu dong laa bëggoon defal ci bis bi lu la kenn deful waaye nag damaa bëgg defal loo deful kenn maa sañ kon nag képp ku taalif Sëñ Tuubaa rek boole naal te mbokk te noonu laa ko wax mu ne ma doy na baatu doy ne laa mujjee dégg soxna si te loolu doy na dëgg euh, ñuy dem soxna Bali lépp lu muy def ci kër gii nii soxna astu jekk-jekk ne ma kar téléphone sëñ Fallou Galas dafay ñëw ak tey suma sañoon nga teew noonu la soxna may daan def li ma boolee ci màggal gi fii laa toog nii laa toogee ma ak sama sëriñ bi ma jébbul soxna toog soxna may toog fee ci màggal gu njëkk ga mu ne ma bàcc mbooma maag sëñ bi ñëw mu ne ma euh, bis bii ñu bokk def nañ ko ñetti xaat benn bi mooy kër gi bi ci def mooy kër sëñ Modou ci asalam bi ak gouvernement bi yow lañ féetale pénc mi loolu ñu bari seere nan ko ban ma ko waxee man dama sama xol di ci sedd guy guy maa ngi moom ci loola nga xam ne su ma toogee dama yóbbu rek ca pénc mi waaw ah kon nag ba noppi mu defal ma loo xam ne man jàppoon naa ci àdduna danaa ko man walla danaa ko def toog ba mu tàkkusaan rek mu yebal ndaw booma mu ñëw mun dama bëgg nga dem siyaar ji penku te li ma wóor <laughs> liggéey naa fi siyaar màkk ba tay ndax koo xam ne immigré nga fan at ak juróom benn bu dëkk bu na nga teew foofu def fanaat fukk juróom juróomi def Espagne fukki at def Amérique ñaar fukki at def naa am naa paasu màkk waaye bu ma dajaloon paasu màkk giñ naa ci xadimul Moustapha ba laylatul xadar ñëw danaa ko ci def kon yaakaar naa ne moom duma mën dajale paasu màkk waaw danaa ko def ba mu jeex tàkk te wax naa ko itam soxna Baal ne ko bu fekkonte ne doomu aadama yi dañ may jox ngir laytu xadr ba mat milliard su ma xëy naa lu ma jënd café laytu xadr jaral na ma ko te loolu itam ci laa fas ci boolee te kóllëre bu soxna si may amoon soxna Bal yi jàpp na ko jàpp goo xam da nga naan nii mu ko jàpp sax eh, ëpp na gama amoon ci soxna si loolu la doon doxale ak kon ki nga xam ne moom la fi bàyyi muy astu soxna astu Mbàkke ak euh, sëñ Cheikh Abdou mii ak sëñ Modou Mahfouz ki démb samay sëñ dafa nelaw ak sama kii noonu la ñëwee ca armée li jóge fa ñëw ci kër gi ñëwaat ca kër Mbàkke gi ci ci xaajira di ma ko jàll moom sëñ Modou Mahfouz kon ba tey kóllëre googu nekkoon soxna si mu ngi ci ñoom sëriñ Bàcc Mbeng Eh, jërëjëf itam mbokk yi nga xam ne ñoo ngi nuy déglu ak ñu nuy seetaan di jaajëfal bu baax eh, mbokki journaliste yi fi teew xam naa sëriñ seexu naa bu jëlee kàddu gi dana leen jotal cantuk sëriñ eh, Seex Abdou Lahad ndax xam ngeen ne mu ngi ci ay yitte waaye ñor gu ko jataay bi ñor tax na ci subaak léegi woo na ma ay yoon dembit woo na ma wax ma ne ma dama amoon yéene ñëw waaye xat-xat yi jàpp ma te ma xam ne maag sëriñ naa benn lañ ci moo tax ma yebal sëriñ naa ngir mu ñëw jël kàddu gi waaye eh, li ci am solo rek mooy nit ki fi ko ay bokkam teg damay wax ne laylatul xadar nit mën naa woote aw xew bari mbooloo waaye ndax da am qualité mbooloo bi ñëw ndax quantité ak qualité bokkuñu qualité bii ñëw ci laylatul xadar mooy qualité bi sëñ tubaa soxla ndax boo ñëwee da ngay waat ne mbooleem njabootu sëriñ tubaa gi ñi nga xam ne ñoo war a wuutu sëñ tubaa ci kaw suuf ñoom ñëpp a ngi ci biir kër gi waaye bu dee ci wàllu niti àdduna yi da ngay xam ne ñi daje ci laylatul xadar bu ñëwoon tey fii lañ bëgg senegal jaar fa faw Sénégal jaar foofa te nag mbir moom biir ak biti rek ko seq baatin bi sëriñ bi la saayir si ñi ci des la kon saayir si ak baatin bi lépp dana masa daje fii waaye bu ma xoolee eh, mbooloo mi indi ay daayira di siyaare si da xam ne lii sëñ tubaay kese tax waaye lu bu dutoon sëñ tubaa lii du mën a demee nii da ngay gis ne doomu maam Thierno Ibrahim di soxna yëmmu mooy jiite daayira bi bàyyi ko daarul moxti benn sëtub dangay gis ne may Ousmane ak may may may may may Modou Awa Balla ak may mu ne nga cay dégg loolu la muy tegte la mooy nekkin wu rafet wu soxna may nekkoon daarul moxti ba ñoom ñooñu ñëpp ñu tudd duppee ko seeni doom fab seen doom yooyu jox ko da ngay gis seen daayira bi ñëw fii ci ginnaaw soxna Bali nga xam ne soxna si moom bis boobu du am balaa am dara waa daarul moxti ñi dañoo agsi bam ndogoo ndoog ñoom bokk toog ci saal bi maslaak ñoom lépp dangay gis ne soxna astu ma ngay baagante ca diggante waañ wa fu ñu war a lal fu ñu war a jox ku ñu a jox nga lekk ku ñu war a jox nga naan moom mbubb du ko tal kon moom ñi ngi ko doon jàngal laylatul xadar euh, sëriñ Cheikh Abdoul Ahad it da ngay gis ne mbooleem ñi laylatul xadar lu mu ciy def mook rakkam yi ñoo koy àndal euh, bokk di ko organiser di créer ay plateau yoo xam ne waxtaan yu am njariñ yoo xam ne dolli ko ne ci laylatul xadar ji muy euh, plateau yi ñu ciy def ba àgg ca bis bu mag ba mu àndandoo dem ci kër sëñ Modou Mahfouz na ko soxna si daan defee ñu defee ko noona waaye da gis lu mel ne daayira bi bàyyi ko taayif da ci am daayira yoo xam ne mat nañoo bàyyi xel ndax bu dee moo ti fala sëriñ soxna baali bokk bu dee daayira yi bàyyi ko taayif fala soxna baali nekkoon di liggéey di wut yàlla waaye da ngay gis ne daayira taayif daayira bayda daayira soxna maam Fatim Mbàkke ma reemaloo daayira eh, yi boo soxna Astu Njuug xeeti ñooñu nga xam ne ñëpp njabootu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma mala fànn fu ci nekk créé nañ ab daayira ngir mu ñëw ci soxna baali ci laylatul xadar loolu li muy tegtale mooy nekkin wu rafet ak jikko ju rafet yoo xam ne soxna baali mi ngi ko doon dund ak eh, ay ay bokkam mi ngi ko doon dund itam ak ay dëkkandoom loolu da ngay gis ne daayira yooyu benn daayira bu lu xoolal lu mel ne njabootu sëñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi eh, ak sëñ Modou gay Jamo yi ñooñu seen daayira yi bu ñuy ñëw alquran ji niy jàng eh, waxuma la dara waaye way yu rafet yin ciy boole dara du ci des boo xoolee lu mel ne daayira kër sëñ Basiiru saar jaamu sëriñ tubaa bu bu laylatul xadari jege soxna baal yi fu fu ndima di jaayee dana ko jënd góor ñi ak jigéen ñi ba ca ñay raam da leen di xottil ay yére laylatul xadar ngir jox leen ko te dana wóor ne ñii de li muy daj ci ñoom tuut ci ñoom alal waaye day jàpp ni njaboot ga rek ak njabootama di njabootu sëriñ ba Basiiru saar eh, jaamu sëriñ Touba noonu ngay gisee lu mel ne daayira asaabul jannati bu jumaa ji xam nga ne ñoom Euh, laylatul euh, màggalu poroxaan rek nga leen di seen ak seenub liggéey ci jumaa ji waaye laylatul xadar faw kuy képp koo xam ne ci liggéeyub jumaa ji ngay bokk nekk ci asaabul jannati da nga àndandoo boole seenu ñaq ñëw fii ànd ko ak soxna Bali te dara mayu leen ko lu weesu àndin rafet ak jikko ju rafet yoo xam ne soxna Bali amee na ko kon daal li nga xam ne moo gën ci doomu aadama te bu baaxeem léppam baax moo di ab xolam yàlla moo baaxaloon soxna Bali ab xolam kon xam naa ne ci la ñuy daal di bàyyee kàddu gi ak sëriñ naa xam ne lu jiw wa jeexut du fa jóg soxna Bali dem na waaye demut soxna May dem na waaye demut ñii ñu fi bàyyi yaakaar naa mat nañ sëkk ay wutaat ca ñoom li ñuy def it jàng nañ ko ba mu mokk rumbux rumbux te gëm nañ ko te pas-pas bi rek moo ci am solo te yore nañ ko kon yaakaar naa liggéey bi dara lu ci laal suuf kon damay bàyyee kàddu gi ak sëriñ Seexuna. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi nu ci sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam eh, sant Serigne bu baax a baax a baax di jégalu baax a baax ci kàddu yi xëy na day kàddu yoo xam ne sañee su ko bañ waaye kaddu yu mbégte bu baax a baax macha allah di sant bu baax baax ci kàddu Cheikh Abdoulahi Cheikh Abdoulahad waaye njëkk loolu it di ñaan bu baax a baax yàlla subhanahu wa taala jot ci ay xéewal ak ay yiw ak ay daraja yu kawe kawe kaw ci sunu maam ji fi nekkoon muy soxna may Maymunatu Mbàkke nga xam ne bu jamono ji masaana dëgmal baraana loo daan gis ay bëñam bara baraana loo daan gis ay bëñam kon yàlla na ko yàlla fay li fi ak baa ngi fenk di ñaan bu baax a baax it soxna Baali Mbàkke soxna Mambuso nga xam ne Euh, li ñuy wax ne mujjewutoon puso mu réer kon day mel na rafetaloon na bu baax a baax macha allah ba euh, li ñuy wax ne fi ko sëñ soxna may bàyyi woon bu fa yamoon rek gàcce la doon ci moom kon macha allah ak yë yëkkati na baar bi ba mu kawee lool macha allah kon di ñaan bu baax yàlla dotti ko ay yiw ak ay xéewal ci fa mu nekk di ñaanal bu baax a baax it sunu waajur yi nga xam ne moo fi doo ko jógee nga xam ne mën nañoo wax ne ñun xamuñu sëñ Abdullahi waaye xam nañ sëñ Cheikh nga xam ne dafa taxawoon ci sëñ Abdullahi taxaw ci sëñ Cheikh taxaw ci sëñ Moodaa bi taxaw dafa dañoo féete woon fépp doonoon kenn koo xam ne it dafa doonoon jàmbaar lool ci digganteem ak soxna May ndax xam naa ci am naa ci xam naa ci tuuti tuuti loo xam ne xam naa ko ci moom euh, kon di ko ñaanal bu baax a baax it yàlla fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu nekkoon nii te yàlla bu mu rëccu te yàlla bu ko cat jiitu ci barkib sëñ Tuubaa ci kaddu Cheikh Abdoul Ahad di sant bu baax a baax sañ Fallou ndax lu mel nii am na solo lool macha allah ndax ñu mel nii dañoo mat di dañoo mat di waxtaanee waat ndax yàlla subhaanahu wa taala wala sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne wa inda dikra saalihina tanzilu rahma kon booy fàttali ku baax rek xamal ne yërmande yàlla wàcc na ci jataay ba te ñu mel nii néewaanal jamono ji dafa néew léegi jigéen ju baax jigéen ju yiw jigéen ju fegu woon jigéen ju daan muñ ay metit jigéen joo xam ne lépp lu mu boppam moom la yéenee moroomam joxe nañ ci benn misaal bu gàtt rek ci ndab yooyu nga xam ne euh, soxna may moo ko daan def nga xam ne amut benn buntu kër bu mën a taxaw waat ne masoo caa du mosu fa dugg niki noonu noonu la bi mu fi jógee xam na ne yan ba diis na waaye li ñuy wax ne ab yan lu mu diis diis diis boo amee téeñ yan ba du diisati te xamoon nañ ne téeñ boobee teeñ la woon boo xam ne kenn daawu ko gis waaye téeñu baatin la woon te mbiri sëriñ Touba bala ngaa xam ne moom rek moo man kanam man gannaawam mu dem bàyyi fi njabootam kon teeñ boobee macha allah yan woon na ko ba buntu kër yu baree baree baree baree baree bare yokk na sax la soxna may doon def ci ndabam yooyu daana fa dugg te wax nañu ne euh, Serigne Touba day wax ne yowmal xiyaam ñay njëkk a dugg àjjana mooy ña daan liggéeyal jaami yàlla yi ñi daan liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi ci masaalikul jinaan sëñ Tuubaa da koy wax ñu ne yowmal xiyaam bu bis penc ci teewee da ngay dégg benn kàddu bu jib daan ana ñi daan liggéeyal jaami yàlla yi ñu ne ñu ngi nii mu ne dugg leen dem àjjana bi xayri fitnatin wa xayri na kon day mel ne kon ñoom ñooñee mooy ñoom ñii nii kon ci kàddug sëñ Abdou laxat maa ngi sant bu ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax sëñ Fàllu mi ndax lii maa ngi koy tooñ léegi naan ko jiitu ngeen ñu ci programme yi macha allah te lu mel nii day doon loo xam ne cërub jàmbur la kenn mënu koo jiitu kon kenn mën la woon a jiitu ci programme bi moo tax ñoo ngi lay sant bu baax di jaarale cant googu ci képp koo xam ne teew na bi ndax li wax ne yéen ñi ko yor yor ngeen jaasi ñaari wàll mën ngeen cee def lu baax mën ngeen a def safaan ba waaye yéen mel na ne def ngeen ci lu baax macha allah yal yàlla fay bu baax a baax a baax. te yàlla defit seen groupe yi ngeen yor mu doon groupe yoo xam ne la sëñ laa Lahad doon wut ci presse ngeen mën ko ci am ci barkeb sëñ Tuubaa di sant bu baax a baax it képp koo xam ne yaa ngi suivre kii euh, direct bi wala yeneen diffé jeux différés yi yëpp di ñaan yàlla bu baax a képp ku fi waay nekk nag ñu ñaanalal suñu kilifa yii fi jógee woon rawatina moom mii nag nga xam ne moo daan taxawal bis bii te fu jamono ji masaana jub si rek defar na ay bagaasam ba mu njëkk ngir waajal ñëw Tuubaa te li sëñ Fallou wax lu am solo la macha allah nit doo tànn fa ngay juddoo waaye doo tànn fa ngay génnee àdduna waaye yàlla moo lay tànnal fa ngay ganee àdduna moo lay tànnal fa ngay génnee àdduna kon moo tax yàlla tànnal ko fa muy ganee àdduna tànnal ko fi muy génnee àdduna ak bis bi mu gën génnee àdduna te yaakaaru na lool macha allah yaakaaru na lool ndax euh, bis bi nga xam ne ca la Serigne Touba wax ne ca lañ ko sant lañ ko santale yàlla ak dont bis donte du bis ba muy ñëw waaye bis ba muy dem la te sëñ bi ba muy dem xamoon na ne victoire bi assuré na ko ba noppi moo tax mu ne woon nañ ma sant yàlla ci bis ba may génn ndax lam bëggoon am na ko ca ca bis boobu la tànn génn la ko yàlla tànnal mu génn ci àdduna di ñaan yàlla bu baax subhaanahu wa taala mu defal ko taw tawfeex sëriñ Tuuba ak ngëneelu sallallahu alayhi wa sallam ak barkeb sallallahu alayhi wa sallam ak ci barkeb sëriñ Tuuba di jégalu baax baax ci kàddu yi ndax dañuy ndaw loo xam ne sob nañ te bari wax waaye xamuñu la ñuy wax waaye ñaan yàlla lépp lu ci baax mu doon addee Serigne baax ak addee Soxna May ñu dotti ko ay xéewal ci Soxna Baali ak mbooleem ko fi jógee suñu waajuroo Serigne Cheikh waaye lépp lu ci dëng it suñu coptale ak bari wax waaye euh, du man a wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf euh, Serigne Cheikhouna kàddu yi fa tabarakallahu mat na sëkk tayit résime ne mbooleem kàddu guñ fi waroon a jël wala buñ fi jël ba noppi ci li nga wax rek ci euh, Soxna Baali. ci ay qualité yoo xam ne moom rek lañuy wut ci nit ku yiw Soxna Bali macha allah baax gi yiw gi daf ko daf ko jiitu te nit lu mu baax baax te yiwut amul benn njariñ waaye Soxna Bali boo ko gisee rek xam ne nit ku yiw dëgg nga ne ba ci photo sax Soxna Bali doo ko ci bett ndax ni ko yàlla bindee mënoo ko bett ci benn foto ba ne bii foto daal wax dëgg yàlla nangam saa yoo jëmalee appareil bi ci moom wan la ne nit ku yiw ngay bëgg a photo nit ku yiw ngay bëgg a noo ko bett rek bu foto bëggee génne ñu xam ne nit ku yiw la da jànge ci photo bi xam ne ko am caractère a ngi nii da nga gis ne kii du ku ñàkk fayda ko am caractère a ngi nii waaye danga nga ci photo bi it ne kii de xar kanam bi ku ku baax la ku koo xam ne ku ko gis ñeme ko loolu danga nga ko xamee ci xar bi kon li ñuy wax ne Sëriñ tubaab moo waxoon ne dee leen defar seen jëmm ba ku leen gis bëgg leen ngeen defar seen jikkoo ba ku leen mos duutu leen mën a bàyyi loolu yàlla baaxe woon na ko soxna Bali defaroon na jëmmam ba ku ko gis bëgg ko waaye defaroon na jikkoom itam ba ku ko ñam dootu ko mën a bàyyi day mel ne nag loolu euh, yar na ci njaboot gi am nañ yaakaar bu baax a baax a baax a baax ci liggéey bi nii soxna astu wuutoo ginnaawam ànd ko ak Serigne Cheikh Abdoul ca fa góor fa càmmiñ war a féete soxna astu féete fa jigéen war a féete ñu seq kër gi na ko Cheikh Abdoul Ahad waxe kero bañ ko yóbboo bañ yóbboo soxna baali ca kanam soxna may Maymuna te loolu it e, sëñ Cheikhouna liggéey bu réew ngi ci ndax xam ngeen ne armée li Tuubaa yi moom dañu ko tëjoon waaye kan kan moo ko njëkk a tijji mooy soxna Bali moom soxna May te ba mu koy tijji teggi wut waxe Serigne Sidi Mokhtar ndax fekk na Serigne Sidi Mokhtar dem àjjana sëriñ toxaat toog fi di sëñ Tuubaa caabi jim njëkk a joxe soxna Bali la ko jox ngir ñu tijjil ko eh, armeel yi ñu def ko fi ci loolu dara mayu ko ko lu weesu ab liggéeyam ndax lu ko jiitu at rek la defaraat bara barabu soxna may bi pentiraat ko eh, rafetaatal ko ba mu rafet lool mu demal boppam di ko seeti daal di wax ne bu ma ko mënoon a or dama koy or ndax lu ma am kii moo tax ma am ko loolu la ko yàlla fayee bi mu génnee àdduna ñu óofal ko soxna Maymuna waaye kere bi ñu agsee ci kër gi rek la Cheikh Abdoul Ahad waxoon kër gi moomu ma ko Astu Mbàkke moomu ko kër Serigne Touba la kër Serigne Touba kon ñëpp a ci yem fu waay mën a jóge rek taalibeb Serigne Touba bu mën a doon na xam ne kër gi kër Serigne Touba la kër Serigne Touba nag doomu aadama yëpp ko bokk daal wax na it li feeg ñee ngi fii nekk it añub Serigne Touba bii du manqué waaye xam ngeen ne añub Serigne tubaab bi moo daan ànd ak añub jumaa ji waaye di ànd ak nag añub doxandéem yi kon kër gi kërug taraanga la goo xam ne ku masaa xiif boo fi duggee regg nga ku masaa mar boo fi dikkee màndi waaye ku masaa jàqit boo fi jógee sa sedd na guyu kon ñoo ngi ñaanal njaboot gi tàmbalee ko ci sëñ Modou may seen kilifa jaar ci sëñ Cheikh Abdoul Ahad ak soxna Assou yàlla na leen yàlla sàmmal boppam ba yaakaar yi nga xam ne moom la murid yi am ci kër gi yaakaar yooyu yàlla nañ ko mën a matale di sant bu baax a baax eh, mbooleem ñi nga xam ne ñoo yaroo ci kër gi fab seenu cant teg ko ci loxol soxna May gaañ ak mbooleem soxna May ak soxna May Ñang ak mbooleem ñi ngi ko seqal ba ci soxna May Njaay eh, mu mag soxna May Njaay ak ñi ngi ko seqal ñëpp di sant it yi nga xam ne ñoo yore daayira Laylatul Qadr yi di leen xamal ne bis baa ngi ñëw bisub sëriñ Tuubaa la te soxna may noon na woon liggéey bu yàlla nangu ku ko gis xam ko te yàlla du ku bëgg a dimbale moo daf lay xëy ci lu sëñ tubaa gërëm nga def saw sama ci sama bis bi ku ko gis xam ne sëñ Tuubaa gërëm na ko kon nag ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen jox rendez-vous incha allahu rabbi fële ca Daaru Salaam Daaru Salaam ngir euh, waajtaayu bis bi nga xam ne moom lañuy defal sunu sëriñ di sunu wasila di sëriñ Modou Rokhaya ren jii ñu duppee bis bi di ci ñaanal soxna Bali mooy muuna waaye nag dara jaale ko it koo xam ne sëriñ seexu naa eh, nit eh, li sëñ a wax léegi ne eh, doonoom yambar du tee jéem a góorlu nit du yene yàcc rek ku la teral nga ne yeyoo naa teraanga ja waaye dañu wax ne képp koo xam ne tax na laa gi siyaare yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ne kooku bu amoon àjjana dañuy wax na jox na la ko kooku mënatoo ko fay te soxna moomi Kebe moom alaaj njuga ke du du du du du lu ma dem këram du lu ma ko laaj waaye toog ba mu neex ko rek mu ne ma daal damaa bëggoon nga dem Makka aji ji kookee nag mënu mu ko fayal wenn weesu Sëriñ Tubaa tax mu def ko te ci man Sëriñ Tubaa ci lay xëy di gon kon ca ca ma xam diggam ak soxna may Maymuna xam diggam ak soxna Baali xam diggam ak soxna Asu moo tax ma ne ko bisub soxna Baali bii yow lañ koy dara jaale ñaanal la ci yàlla yàlla musal la sàmm la ba euh, fi nga bëgg a àgg nga àgg fa ànd koog sa kilifa yëpp ànd koog sa sëriñ ànd ko itam nag ak say xarit yëpp kon ñu ngi sant ñëpp di leen jox rendez-vous Daaru Salaam samedi le 7 le 13 incha allahu rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.